Et c'est peut-être en toute liberté, et eh bien en toute liberté que Source A embraille, et eh bien embraille sur la sortie au vitriol de Mambay Nyang. Et plus qu'il est dit, et plus qu'il est dit, toutou retenons l'information de Source A, à savoir prêt, et eh bien prêt à démissionner et à se mettre à la disposition de la justice dans l'affaire des 29 milliards du Prodac. Mambay Nyang, porte plainte contre Ngor Massage, Astafourla, porte plainte contre Ousmane Sonko. Actualité à lire, et bien actualité à lire dans le Tribune quotidien, le journal de retenir calomnie, fausse allégation Mambay Nyang. Nyang traduit son code devant le procureur. Est-ce à dire, eh est-ce à dire que ça sent le nez faire des dans le Tchaya, Et eh bien, dans le Tchaya de l'apôtre du Bourroc, pour l'instant, Et eh bien, pour l'instant, celui qui veut prouver, Et eh bien, qui veut prouver au leader de Passef les Patriotes qu'il est garçon. Pour ne pas dire il est vrai garçon, si on en croit critique le journal, c'est Mambay Nyang, c'est Mambay Nyang, et c'est Mambay Nyang. En tout cas, à la une de critique le journal, on peut lire rapport de l'IGE sur l'affaire Prodac, Mambay Nyang. Eh bien, Mambay Nyang défie Sonko devant la justice. Que dire de ce que révèle Enquête quotidienne ce matin, sinon le Tipri Chembay, signé Mambay Nyang en direction de Ousmane Sonko. En tout cas, Enquête quotidienne de révéler rapport IG sur l'affaire Prodac. Mambay Nyang, Mambay Nyang porte plainte contre Ousmane Sonko. Ainsi, retenons d'après enquête que Mambay Nyang entend prouver à Ousmane Sonko qu'il est garçon. Et c'est à Ousmane Sonko de démontrer également à Mambay Nyang qu'il est garçon. Et plus qu'il est du Foulaï Gaïda car Retenons tout simplement et tout bonnement ce que renseigne critique le journal, à savoir la riposte. Et eh bien la riposte et à nucléaire, s'il vous plaît, n'a pas tardé venant du ministre du Tourisme et des Loisirs, Nyang, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a sorti des Molde des fall pour ne pas dire des missiles Scud et des Tomahawk contre, eh bien, contre Ousmane Sonko, Sawai, Enyam, Sonko, Ousmane, ou la porte, et eh bien la porte du bourreau qui aura probablement de quoi se ronger les ongles en lisant le quotidien, le quotidien, le journal de Révéler Gestion, eh gestion des domaines communautaires, product champ de bataille. Et la mère des batailles, la mère des batailles, d'après le quotidien, le quotidien est engagé, engagé par Mambay Nyang. En tout cas, Sonko attaque Mambay Nyang, réplique par une plainte, d'où les tui tui tui signé le ministre, comprenez Mambay Nyang, à savoir, aucun rapport, aucun rapport ne m'épingle. Est-ce à dire, eh bien, est à dire que pour Mambay Nyang, Sawai, le leader des pasteurs, les patriotes, comprenez, la porte du Broc, Ousmane Sonko, de dafa mën a meew dafa mën a pour l'instant et eh bien pour l'instant réew quotidien en tout cas de souligner détournement de 29 milliards de Prodac Mame a Niang accuse Sonko pour ne pas dire Mambay Niang envoie et eh bien envoie Ousmane Sonko dans les cordes conférence de presse benen bu xëy di ci yéenekaay yi bi ministre Mame gonté Niang gonte woon démb enquête kay nañu touma yi Ousmane Sonko tek ci abderam deram ci coowal Prodac yi touma yoyé la don fa xas ba fonds fa mom ministre Mambay Niang ne porte na plainte Ousmane Sonko ci kanamu procureur de la République ndax liko Ousmane Sonko waxal ak li koy tuumal dara du ci dëgg amul benn rapport IGE bu ma mësa épinglé ci mbiri Prodac l'info nañu ministre tourisme ak loisir di Mame Mbaye delloo na Ousmane Sonko kurpañ ba mu ko yónnee woon ci jano bi mu séqoon ak taskatu xabaar yi démb fa la xam leen ne na plainte Ousmane Sonko ca kanamu procureur li mu bëgg moo di li ko Ousmane Sonko di tuumal mu génnee preuve li mu koy tuumal mu ne ndax ci jamono jooje ndombal tànk ministre li ma yore woon tax na mënuma a dugg sax damay am benn responsabilité ci passation de marché yi ñu dugal ci a def a man su dinaa génne ay preuve yuy wane ne li koy waxal yépp moo ko def Mame tëje ay waxam ci yéenekaay bi ci ne ku ñu accusé viol li la war moo di génn réew mi boole ceeki tëj sa gémmiñ produk bu boba man ma mbay ñang may jébbal sama bop justice mu ne duggaleen Ousmane Sonko di sosal nit ñi ak di leen waxal lu amul waye bi yon mom na xamne ne ruux na siru ndax du jall ñu desandi ak suñu natango yu kay bi di Sud Quotidien na ci ngay ñëwaat ci ki di Mame Mbaye nek ministre du tourisme mom mi nga xamne ne dafa fasiyene yéene ci kanam kanamu yon ki di Ousmane Sonko kay bi di Sud Quotidien di ñu xamal ne ministre du tourisme moom daal dinay tontu kon ki di Ousmane Sonko ci affaire des 29 milliards bu walu produk mom mom kon di Mame Mbaye yëglekaay bii di enquête moo ñuy xamal ne moom nee na daal ci mbirum 29 milliards yooyu amul benn rapport bu bàyyeekoo ca IGE goo xam ne dañ ko cee joxoñ baaraamu tuuma loolu sax moom moo tax mu daal di porter plainte jëmale ko ci wàllu procureur ngir fexe ba kii di Ousmane Sonko daal di génne rapport IGE boobu ñuy wax ne daal dañ ko cee jàpp moom mu daal di luubal ci lu tolloog ñaar fukki milliards ak juróom-ñeent mu yokk ci di xam xamle ne ba mbir ya moom dafa démissionné woon ngir deram ba mu set wecc culikaay bi di critique ne kon kii di Mame Mbaye Niang bëgg na nag tey jii mbirum 29 milliards yooyu ñu daal di koy darkeppee loolu moom moo tax mu yóbbu mbir yi eh, ci mu yoon Mbaye Niang bu Prodac moomee tribune yéen kaay xamal ma ne day dana porter plainte ca procureur Ousmane Sonko le quotidien le quotidien daal di may xamal ne saa si tembe daal Prodac mel na ni toolub xare de diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang jokkoor maajoor leer la ku wax jox sa moroom keneen wax jox sa moroom ku nekk nag ci ñoom ñaar andi ay firnde Mame Mbaye naan kenn épinglé wu ma Ousmane Sonko naan yor naa rapport Mame Mbaye Niang ci yéen kaay bi xam le ni amul benn rapport boo xam ni épinglé na ma na leer moom ministre Mame Mbaye Niang ci Vox Populi daal di xamal Ousmane Sonko ne su publié benn rapport boo xam ne IGE moo ko def ci rapport boobee ñu daal di may taxal danaa dem man mambay ñang daal di wuy ji yoon bii nag du bu njëkk Ousmane Sonko di wax loo xam ne du dëgg ci réew mi bii nag mooy bu mucc ndax duma ko bàyyi mu jàll moom mambay ñang daal xam xamle ni dana jagat-jagatee Ousmane Sonko yóbbu ko ci yoon te fu mu yem neex le mandat yéene kaay ne ma mambay ñang nee na Ousmane Sonko def koo tuumal moom mambay ñang jël Ousmane yóbbu yoon l'enquête ko di jeene mambay ñang daal lam ci jublu moom moo di moom Ousmane Sonko rapport bu IGE bi muy wax la bëgg mu won ko procureur mambay ne ba ñu ma ko tuumalee damaa démissionné daal di bàyyi lépp loo xam ne xaw ba kenn la woon fas yéene nag jébbal sama bopp yoon ngir ñu déglu ma kon koo xam ni dafa tiit baa mu yox yoxi du def lu ni mel yéene kaay gi di réew mi ko di cee xëy duñu xibaar naan ñu Mame Mbaye Niang ni ki démb janoon ak taskatu xabaar yi doon andi ay leeral ci 29 yi nga xam ne moom la ñu koy tuumaale ci lu jëm ci mbiri Prodac ndax nag Ousmane Sonko njiitul Pastef fan yi ñu génn dafa wax ne am na benn rapport bu inspection générale d'État boo xam ne dafa jàmbaaraam mu tuuma Mame Mbaye Niang lu toll ci 29 milliards ci Prodac loolee moo tax Mame ni ki démb gont na janoo ak taskatu xabaar yi doon ci andi ay moom Mame Mbaye Niang nee na amul benn rapport boo xam ne daan na koy épinglé ci lu jëm ci ci mbirum Prodac te nag nee na amul benn yoon boo xam ne inspection générale d'État wax na ne Mame Mbaye Niang dafa fute yéen kaay gi di enquête xëy dañu xibaar naan ñu Mame Mbaye Niang porte na plainte Ousmane Sonko ci kanamu procureur yéen kaay gi di Vox Populi ak le mandat moom Mame Mbaye Niang daan nay défier Ousmane Sonko nee na bu Ousmane Sonko publier ab rapport IGE boo xamante ni dafa maa épinglé dinaa tekk sama ndombal tànk ba pare daal di jébbal sama bopp yoon te nag Ousmane Sonko bii du njëkk muy wax lu dul dëgg waaye nag leer ba mu leer naññi ci bëtu askanu Sénégal yéen kaay gii di leen fo Mame Mbaye Niang moom nee na képp koo xam ne tuumaal na la dina la andil ay preuve te nee na nag dina andi ay preuve yu leer naññi kane Ousmane Sonko mii ci ay njombi ci la nekk daal di say yokku ne képp koo xam ne nag tuumaal nañ la viola yow li la war mooy nga exilé wu wala nga daal di tëj sa gémmiñ le mandat ne Mame Mbaye Niang tourne plainte njiital Pastef Ousmane Sonko yëgle kaay bi ne maa la ko wax ginnaaw jàkkaarloo ma tasaru xabaar yi ni démb jëm ci coowal 29 milliards Prodac ministre du tourisme ak des loisirs nee na Sonko njiital Pastef lu mu wax lépp du dëgg sama baat ci kaw ndax njiital Pastef lu mu wax tegul fenn ndax amul bés bi la coowal Ousmane Sonko ak mambay kay ca tribunal bu Ndakaaru la ji ginnaaw plainte ministre du tourisme ak des loisirs mambay ñaa ngàll ci kaw ne mambay ñaa jëm ci coowal 29 xamante lu muy wax lepp teguwul nee na du dëgg de yëglekaay bi ne Mame Mbaye kay bëgg-bëgg mooy sétal bopam ba sét wicc ci coowal 29 milliards Prodac yi ndaxte nag Ousmane Sonko lu wax du dëgg te mënu ci indi firnel ci jàkkaarloo ma tasadu xabaar yi ni ki démb moom Mame Mbaye Niang na kàddu Ousmane Sonko yi bo nopi feug ko plainte ne nopi na na ngir wuy ji yoon saa bu ko wooye ngir indi firnel ni coowal 29 milliards yi takku ci lalew ci tamul ben rapport bu ko épinglé problème yaa ngi démarré de Mame Mbaye ki est sorti de sa réserve pour répliquer à ses détracteurs nos confrères du journal Enquête nous indiquent par rapport au rapport de l'IGE sur l'affaire Prodac. Mambeignan porte plainte contre Ousmane Sonko. Il déclare qu'il a porté plainte auprès du procureur afin que Sonko produise ce rapport d'IGE. Selon Mambeignan, il n'y a aucun rapport de l'IGE relatif au Prodac qui l'incrimine. Mambeignan défie Sonko devant la justice. C'est le titre qui barre la une du journal critique. Nos confrères nous font savoir que la riposte n'a pas tardé venant du ministre du Tourisme et des Loisirs qui, pour se blanchir définitivement des fausses accusations euh, portant sur un détournement de 29 milliards, Mambeignan a fait face à la presse pour démentir les allégations et annoncer le dépôt d'une plainte pour confondre le leader de PASTEF devant la justice. Mambeignan, selon Réumi Quotidien, a lui déposé une plainte contre Ousmane Sonko suite aux accusations de détournement de 29 milliards du PRODAC de ce dernier. Mambeignan porte plainte contre Sonko pour fausses allégations et propos diffamatoires, rapporte le mandat dans l'info qui parle de contre-attaque, Mambéignon annonce avoir porté plainte ce mercredi au niveau du procureur afin que Ousmane Sonko prouve ses accusations. À Ousmane Sonko, je réitère qu'il n'y a aucun rapport de l'inspection générale d'État relatif au PRODAC qui m'incrimine, ajoute Mambéignon qui rappelle dans enquête avoir démissionné et renoncé à ses privilèges de juridiction pour être entendu suite aux accusations relatives au PRODAC. PRODAC qui devient un champ de bataille aux yeux du quotidien qui informe aussi de la plainte de Mambégnon contre contre Ousmane Sonko